tey mu nekk ci loo xam ne fa nga cosaano nekk maire ba muy Lat Mbengue étudiants yi ñoom ñoo daje tey amaloon benn xew-xew benn conférence woowoon la ci parrainé la ko mu mel ni loolu tamit mbégte la ci yow fierté la ci yow waaye fierté la tamit ci doomu Saalum yi. Euh, merci beaucoup Babacar euh, maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm équipe bu Equivox TV yëpp di gërëm euh, presse bi fi teew yëpp l'évidence ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp ñëw nañu fi pour euh, fekkee si waxtaan wi te nar a tax ba ñi ko fekkewul yëpp mën a jot ci euh, lu am solo li ma jàpp ne wax nañ ko fi euh, lan moo waral ñu daje fii tey tey dama ñëw fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar pour daje ak ay étudiants yu jóge yu soqi ko ci sama commune muy commune bu Latmingué euh, ñu doon organiser lan ñu doon organiser loolu ñuy wax ci tubaab journée d'intégration des nouveaux bacheliers suivi de mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy dalal ñoom ñiy soog a am bac bees mooy at mi passé war a door seen njàng ci université ñu teeru di leen tatagal di leen dalal mais surtout di leen gunge ci nu ñu mën a euh, euh, installé woo ñu mën a euh, toogee dallu ak xam ni ñu war a jëfandikoo ci biir université ba mën a jàll ni ñoom ñi fi jot a jàll fi ñu jaar ba jàll ñu teg leen fa ba ñu mën a réussir ndax xam nga ne ndorte toujours day métti rawat na nga jóge ci suñu dëkk yële ca Saalum ñëw fii xamuloo fii kenn bu yàlla dogalee sa doole wala dooley wéyjur yi euh, yàlla dogal ba am na fu mu yeggul euh, bu dee jàngkat la am mention sax am bag nekk xale bu xarañ macha allah boo ñëwee bu condition yi baaxul rek daanaka mën na tax ba sa njàng am lu ci gàllankoor donc bés boobu di bés bon bu am solo ci étudiants yëpp en général tey nag sama commune muy association muy amicale des étudiants des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Latmingué moom lañ doon def waaye comme at mu nekk dama leen di may benn ndogu ñëw ndogoog ñoom waxtaan ak ñoom ñaaxaat leen ma ñu boole ñaari bés yooyu ndax jot bi euh, bariwul donc moo tax sama waxtaan bi ma ñëwee ci ñaari fànn yooyu laa ko jubale pour ñu jàppale leen ci wàllu njàng mi da ngay gis ne bi may laata jot maire bi bi ma ko jotee 2014 dama fekk amuloon benn subvention bu doon dem ci étudiants yi maanaam amul benn dërëm bu maire bi nekk guloon maire sax ndax communauté rurale la woon ndax communauté rurale bi doon jàppale étudiants man ma door ci ñaari millions ren maa ngi ci juróom-ñaari millions teg juróomi téeméeri junni donc 7 millions 500 nga xam ne moom lañ leen di jox loolu mosu am yéem lañ ko nag ñoom waaye man xeeb naa ko. li ko di tax nag loolu Bakar mooy man mi ci boppam nekkoon na sama nekkoon na étudiant nekkoon naa fi ñu nekk nii xam naa lal mooy nekk étudiant xam naa ne it suqaliku commune bu Latmingué suqaliku département bu Kaolack suqaliku région bu Kaolack ak bu Sénégal mu ngi jaar ci ndaw ñi ñoom ñooy suñu yaakaar tey ak suba kon bu ñu financé wul investir wuñ ci seen njàng mu bënn xarañ nga kawe ñu am niveau yu nekk ay cadre yu mag mais ñun rek bu ñu fa nekkee naka la ñuy développé suñu gox yi kon du mën a sotti mu tax ma leen man li tax may def lii du kenn ci yéen ku ma ko laaj du kenn ci yéen ku ma ko ñaan maa ko yëgal sam bopp xamal ko sam bopp bëgg ay ma Macoumba Diouf bëri ci commune bu Latmingué ëllëg pour que jafe yi mën a wàññiku lool bu jeexul loo tax may investir noonu ndax nekkoon naa euh, étudiant kon foofu wax naa fa lu am solo wan leen bu soobee suñu borom fekk maa ngi fi bu dul at mu nekk it ñaari at yu ne dinaa yokk budget bi li ko waral mooy man fi mu nekk damay investir ci ndaw ñi depuis préscolaire tout tànk yi ba université maa ngi ciy def ay moyen ren li ma am comme résultat mooy bi may jot mairie bi ñi nekkoon CI ñoo ñoo ëpp ñoo gën résultat bac ci département bu Kaolack ñi nga xam ne bi may jot mairie bi ñoo nekkoon CI ñooñu ñoo am bac ren amin bu yéeme bu yaatu ay mention yu bari ak lim bu bari loolu man waxuma ko inspecteur d' académie bu Kaolack moo ma ko wax inspection inspecteur de l' enseignement et de la formation moo ma ko wax directeur école yi ci commune bi ñoo ma ko wax kon xanaa xanaa loolu wér na kon xanaa investissement boobu kar am nañ amoon na njëriñ te comme naruma ko arrêté dama jàpp ne kon at mu nekk bachelier yi dina yokk kon li ma leen di jox da ngay jàpp ne kon dafay néew at mu ne moo tax jël na engagement ñaari at yu ne bu bare bu sore ba sori ma yokk loolu feeg maa ngi fi ci mairie pour ñu mën a euh, gën leen mën a jàppale pour ñu gën a réussir tey rek am na benn docteur ci vétérinaire bu nekkoon ci salle bi euh, euh, ku doon présenté wu xamuma ko sax ci biir xale yi pour woon la kon xam nga résultat baa ngi ñëw te ay moromam ñoo nekk ci rang bi kon vraiment loolu wax naa ko pour insister ci investissement ci ressources humaines yi ci nit ñi moo gën ci investissement pour man investir ci tabax yi investir ci leneen baax na waaye bu dee communes yu mel ni suñu yos da ciy boole investir ci nit ñi ci doomu commune bi pour li fa ñàkk tey am fa ëllëg kon loolu euh, wax naa ci beneen tomb bi ma wax baakat te mu am ma solo lool mooy gis nga li xew jamono yi université yaa ngi gis manifestation yi fi am dégg nga xeexoo bi fi déggoo bi fi amoon ñu dem ba bugg koo jagle diggante ay xeet loolu sax amul mais dama la bëgg a wax rek gis nga ne mbir mi sori woon na mais Babacar université nekkul foofu la ñuy xaar doole jëflante ci doole li ñuy wax ci tubaab à l'université li ma gëm mooy argument de la force force su argument moo ko war a remplacer maanaam pour nga pour ñu dégg la layu doole layu xel moo ko war a wuutu maanaam nit ki ci sa xel mu rëy nga ko mën a convaincre pour mu def la nga bëgg waaye du ci doole doole du pour sikk waa arène ba mais nañ ko yóbbu arène ba fa la ëpp njariñ fii xaaruñu vraiment étudiant mu nekk ku am doole kuy xeex ku mën a dóor ku mën a ku bëri ku gën a ñawle jaasi ku gën a euh, baax la feteel déedéet ku gën a ñaw xel dem naa sax wax la ne ñun bi ñuy nekk université taa yooyu suñu mag euh, président euh, Macky Sall moom moo ñu jiitu woon mais ñu mel ni ñoom Tall Sylla ñu mel ni ñoom Modou Diagne Fada ñu mel ni ñoom professeur euh, Mbodj Boubacar Mbodj nekk conseiller président de la république ci affaire euh, énergie renouvelable ñun ñooñu ñooy doon ñun ñoo doon ànd mais foofu xarañ gi man mii jiite naa étudiant wu science naturelle ñeenti at toogal leen ci assemblée d' université doon toog ak professeur Souleymane Niang yàlla yàlla yërëm ko recteur bu mathématicien bu bëri xam-xam boobu mais fi ñu doon jongante njiit yi ci grève mooy ñu gënoon a xarañ ci ñun ñooy doon jiite grève yi ba tax na boo doon ñëw sax gis nga dañ lay fan maanaam étudiants yi dañ naan déglootu leen boo lakkee tubaab ñu ne ah boo génnee xam-xam ci benn biir ñu ne ah da ngay xam daal li ngay wax boo toogee ak recteur di wax daf lay déglu ndax day xam ne kii di como noonu lañ doon nawloo dirigeant syndicaliste milieu étudiant waaye nekkul jaayante doole loolu yëpp wër naa leen ne kon fi ñu leen di xaar mooy bari xam-xam mooy réussir néew ma nag du ngeen yëglu parce qu ci démocratie lañ ne bu ngeen amee jafe-jafe yëglu leen mais dafa am ay façon ay yoon pour yëglu ak ñaxtu li la métti nekkul yàq li nga xam ne ëllëg pour nga tabax ko euh, day day doon jafe-jafe kon mën na leen li affaire président de la république laa leen tegal yaa ngi fàttaliku programme lancement programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes bi président lancé bu yàggul fii ci Diamniadio ba muy daaneel dafa wax lu am solo loo xam ne moom laa doon fàttali xale yi sama wax yëpp tey foofu laa ko def duguma ci leneen mooy ci jikko yi Babacar bu ñu defaraatul jikko senegal Sénégal mucc na ba léegi yàlla na wéy waaye bu ñu wul jikko yi wóoruma ndax dinañ continuer di mucc maanaam li dal ñëpp pour man maanaam day tali mën nañoo dal ndax wax naa ne ko léegi. mag ñu baax ñaan nañ fi dama loolu doyatul xam nga tax doyatul mag ñu baax ñooñu li ñu leen war a njukkale mooy jikko bu rafet Babacar mooy am comportement bu rafet suñu biir pour mun a honorer seen mémoire waaye nekkul ci réseaux sociaux yi di saagante di waxante lu bon suñu kilifa diine yi di wax lu bon suñu kilifa aada yi di concours wax lu ñaaw ba li nekkoon ay barrière aaroon bu doon tool yi mën a ñàkk bi aaroon tool bi mu ngi bët kon jur gi daañ ko ruur wala boog mën nañ ko ruur kon ci laa wax ak xale yi ma ne leen li xew université nag damay ñaan mu yem fi waaye bu leen ci mës a bokk bu leen saaga kenn bu leen def violence kaw gee ngeen jógee ci waxin rek la nag ndax li xew foofa am foofa moo am fii rek waaye fa ñu dëkk dafa sori ci biir réew moo tax mu tuddee ko kaw ga la ngeen fa mooy ay wayjur yu am ci yéen yaakaar yaakaar ni fii ñaari at ñetti at di ngeen ñëw ak diplôme yoo nga xam ne bu ngeen dugee di liggéey di ngeen faj gàcce ya kon topp leen loola te bañ a dugg ci leneen lii daal euh, maa ngi ko teg nag ci appelu président de la république valeur citoyenne yi nga xam ne ci ji suñu diine suñu aada moom la jàngale ñoom lañ jël loolu gànnaayoo ko dugg biir université pour que seen njàng mën a bënn mais ñu contribuer ci ñiy dalal réew mi ak ñiy dalal université lii daal bokk na ci li nga xam ne euh, waxtaan naa ko ak ñoom bu doon la xam ne lu ma ama amal lu ma amal solo la euh, te ma kontaan nag ci seen tewaay ci daje tey bi